bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaam ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsaan ila yawmi din assalaamu aleykum wa wa barakaatuhu nu ngi sant yàlla bu baax yàlla mi nga xam te ni moo defoon nu fekkee daaw mu nuy tette ba ñu fekke ren yàlla mu amel nañ ko cant nu ngi koy ñaan mu gunge waat nu ba déwén ba nu fekkee déwén te kenn bañ a manqué nu ngi am mbégte nag lool euh, monsieur le journaliste comme ni ma koy waxee saa su ne euh, dajewaat fii comme ni ñu ko daan dajee at mu jot di waxtaan ci li nga xam te ni que ni mooy appel bi euh, waxoon naa ko la semaine dernière waxoon naa ni que ni appel moom faw mu am. waaye na muy amee faw nu definir ko xool formule bi ñu koy defee wala format bi ñu koy defee waxoon naa ni it incessamment danaa woote benn point de presse pour wax leen exactement li nga xam te ni que ni moom lañ ci xalaat loolu tey defe naa ni moo waral sunu daje bi ce matin bala may dugg nag ci question yi ngeen may ma rek ma. Euh, nuyu ziar ñi nga xamante ni que ni tey ñoo tax nu nekk fii di wax ak njaboot gi yëpp ak diina ji yëpp ak àddina bi yëpp te ki nga xamante ni que ni moo jiitu ca kaw muy suñu wéjur di xalifatul muslimin Baye Abdoulaye mu ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko wér yàlla bàyyi ko fi lool mu yàgg fi lool ndax soxla nañ ko damay wax ni ak lu mën a xew nañu ko fi bàyyi rek nu koy xool kon kooku nu koy ziar di kon ndokkeel ci biisu maama bi nga xam te ni que ni eh, liggéey na ci liggéey bu ci ay bu am solo eh, di wàcce nag nuyoo boobu ak ziar boobu ci ay rakam yépp commencé ko ci imaam Maxta Mouhamadul Muxtaar ibnu Seydina Mandione wàcce ko ci ay rakam yépp léegi si ci suuf ba ci maam Alsaan mi ci gën a tuuti. di nuyu nag di ziar ñëpp ñi nga xam te ni que ni mooy ahlu bayt rasul góor ak jigéen mag ak ndaw di leen euh, ziar di leen ndokkeel ci xew-xew bi nga xam te ni que ni moom la ñu dugg di ziar it taalibe yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di ziar it Sénégal yëpp ak àddina bi yëpp ñi nga xam te ni que ni événement bi événement bu amoon solo la ci ñoom ñu koy suivre waaye xam ngeen. jamono dafay dox lu nekk it dana xew ci jamono moo tax lii nga xamante ni que ni tey moo xew ci jamono ji muy pandémie bi nga xamante ni que ni moo fi ne euh, sonal àddina bi yëpp loolu moo tax ñu ni woon fow appel am waaye nag na muy amee euh, fow nu xalaat ko gis ngeen ni que ni tey la ñu commencé njaboot gaa ngi ci fu nekk ci localité yi ak ci àddina bi ñu ngi wàcc ay kamil ñu ngay ñu ngay ñu ngay def ay ñaan di ñaanal njaboot gi di ñaanal Sénégal di ñaanal àddina bi yépp e, waaye la ci ëpp solo dama koy wax ma ni leen e, fan bu njëkk bi am na solo lool waaye ñaareelu fan bi moom mooy bés bi nga xam ni que ni fa la yonent bi yàlla bi Seydina Limaamu Mahdi alayhi salaam fii ci Yoof ci tund yi la taxawoon ni ajibu daaye la yaa ma'shar al insi wal jinni inni rasulullahi ilaykum woote boobu nag dafa am solo ndax woote boobu moo tax tey jii der bu ñuul tey jii su ma yeboo ci lañu amoon seen seen af leen affranchiroon ndax ci lañu daggoon seen mbuumu jaam ba tey ji gis nga li xew ci àddina bi lépp la nga xamante ni que ni nit ku weex mu ngi ko daan def léegi nit ku ñuul mu ngi koy def événement yi fi mujj ci àddina bi yëpp xam nañu leen kon nag bés boobu dafa am solo bés boobu nag damay wax ni que ni yonent bi yàlla boobu ba mu wootee fii ci Yoff fu nekk la waaye jóge woon ñëw di wuy si woote bi ñi war nañoon gëléem ñi war fas ñi war mbaam ñuy wuy si woote bi yàlla boobu kon nag tey jii suñu doxee ba mu ëpp plus de siècle ngeen gis ni woote boobu dafay yokk saa su ne ba tey jii mu mel ni ñu ni mu war a mel kooku war nañu gëm ni que ni loolu dëgg gu wér peng la ndax su fekkoon ni que ni ay caxan la wala lu ñu comploté la wala lu ñu lu ñu fabriqué la defe naa ni kon tey jii kenn du ko wax waaye woote boobu tey la gën a jolli mbooloo mi tey la gën a bari kon ñu jàpp ni que ni loolu lu am solo la ci taarixu Seydina Limaamu kon nag damay wax ni que ni eh, bés boobu na ko mag ñi daan defee du jóge fu nekk ci àddina di fekk si woote boobu nu nit ay la yéwén waru des gannaaw. kon nag may ñaax taalibe yëpp àddina bi yëpp ak fu ñu waay mën a ne ngay laayeen ñi nga xam ni nag ñoo nekk fii ci senegal damay wax ni que ni bés boobu bés gënu ko màgg ci noonu kon nag fu waay ne fexeel ba bu subaa altine ji ci bëccëg ñëpp daje ci yaaf ndax bés boobu dafa am solo ci taarixu Seydina na alayhi salaatu wassalaam Eh, damay wax ni que ni eh, bi mu wootee woote ba na mu na mu na mu na mu meloon ak ni mu mel tey soo ko xoolee nga xam te ni que ni am na jéego yu am solo kon nag damay wax ni que ni fu waaye mën a ne ci àddina leen naa nag ñi nekk Sénégal parce que damay wax ni Seydina Limaamu wootewul Yëmbal wootewul Cambérène wootewul Malika Yoof gi la woote kon nag suñu koy wuy ji ci yoof gii lañ koy wuy jee te loolu defe naa ni que ni mbégte la mbégte la ci àddina bi mbégte la ci jullit yi rawatina nag laay ni ndax bés boobu dafay nekk bés bu màgg boo xam ni que ni bés la boo xam te ne ci lañu daggoon mbuumu jaamu nit ku ñuul te it mën nañ ko dégg ndax yàlla dafay wax ni que ni wala xat euh, baas naa fi kulli matin rasul xeet wu nekk danaa ci yónni ab yonent defe naa ne noonu yonante boobu muy Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu wasalaam moo ne moo ñuul fii woote fii ci Yoof ni maa weexoon démb ca Màkka maa ñuul fii fii ci saw te it mën naa ne ndax yàlla paase na foofu dogalu yàlla ëpp na loolu ndax yàlla wax na ni que ne walaw shi'naa la baas naa fi kulli xaritin naziran fu ma neexoon sax dëkk mu nekk mu wàcce fa yonent kon nag wàccee yonent gu Seydina Limaamu fii ci Sénégal mbégte la ci waa Sénégal mbégte ci àddina bi mbégte la ci jullit ñi yëpp kon nag fu laay nekk ci senegal bu altine nan nu fekk fii ci jamalaay euh, li ñu bëgg nag mooy kuy ñëwit na bàyyi xel ci li nga xam te ni que ni moo fi xew mooy mbas mi li ci kilifa sanitaire yi wax nañu ko nañ ci góorgóorlu def ci sunu kemtalaayu kattan lépp luñ ci wax nañu ko jëfe lépp luñ ci tere nanu ko bàyyi waaye damay wax ni que ni place bi du fees bu feesee yet gëm naa ni bu ñu demoon ba ca ndox mu ba ci géej gi yàlla dina téye ndox mi ba nañu taxaw ci ba mu jeex ndax bés moo toll noonu kon nag bu kenn bu kenn eh, xalaat ni ñii ñoo war a ñëw walla ñii ñoo war a ñëw kon nañ ñëpp préparé ñëpp daje ci yor-yor boobu. nu màggal yonent bi yàlla boobu ñu ngi gërëm nag waa Yoff ndax waa Yoff ñoom la ñëpp di fekk si voilà depuis plus d'une semaine euh, deux semaines voire deux ñu ngi préparé ñu ngi bale ñu ngi defar kër yi ñu ngi defar lépp di préparé di recevoir gan yi kon ñoom it am nañu leen gërëm ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla yàlla mi nga xam ni que nii mooy joxe yal leen jox ba ñu doy doyal sëkk ba nga xam ni que nii mbooloo moomu ñu recevoir dinañ leen mën a toppatoo teral leen bernde leen loolu daal mooy message bi may lancé Laayeen yëpp mooy fu Laayeen ne ci Sénégal bu altine ci yoor yor ñun ñëpp nañu daje jamalaay mu màggal bés ba bi nga xam te ni kat yonentu yàlla bii moo waxoon ne ajibu daa'i llaah yaa ma'shar al-insi wal jinni inni rasulullahi ilaykum waaw kuy ñëw eh, xam nga moo tax ma ni mesure sanitaire yi ñëpp xam nañ ko defe naa sax léegi nit ñi tàmm nañ ko ku ci nekk sooy ñëw yaa ngi war ngaa indiwaale sa masque boo mënee indiwaale sa gelit it indiwaale ko ak yeneen ak yeneen yi nga xam te ni que ni moom la kilifa yi nga xam te ni loolu mooy seen xam-xam ci wàllu médecine loolu la ñu digal. Euh, daje bee euh, raj rajloo bi aussi xaj na duñu ko mën a def nanu ko bëgg a defee waaye nag nu mu gën a baaxee rek nañ ko defee damay wax ni bu ñu doon taxaw ba géej ba yoof tongoor wala feneen nit wala ñu taxaw ci étage wala ñu taxaw ci balcon yi jar na ko ndax bés moo toll noonu kon na ko ñëpp préparé loolu daal mooy message bi may lancé li may wax nag mooy eh, taalibe bu nekk war na bàyyi xel ci loolu ndax du ngeen ab sëriñ du ñu leen ni que ni bu leen ñëw yor yor ndax yor yor boobu lu am solo lañ ci taarix na Limaamu kon nag du ab sëriñ du ab taalibe amul ci kenn ku leen mën a wax ni que bu leen ñëw ci yor yor boobu kon nañ ñëpp préparé fekk nu jàmbalaay incha allah